life wax ak jeunesse bi wax ak population bi su ma gisee dof yu mel ni 10 mille problème nga xam ne seen xam-xam doxut dañoo ñëw pour jaxase Sénégal pour taal Sénégal ñoom ak dof yooyu nekk États-Unis ñoom Ousmane Tounkara xaw ma je ne veux même pas parler son nom et les autres dof bu mel ni Morgan France ñooñu ñoo tax may def ay live pour wax jeunesse bi buñ déglu ñooñu ñooñu ñu ngi ñuy woo ci affaire de rebelle kuñ ci jàpp 10 000 problème saa yu ñu ko jàppee 3 3 secondes laa la may ay taxaw jàppale ko génne ko. mais quand yi infiltré ñukoy top top. est-ce que buñ ñen jappé dina am koy taxaw pour ñooñu chaque jour mom lañuy ñuy ñooñu duñu référence ci réew ay problèmes ay Morgan ay Ousmane ñooñu duñu Ousmane Tunkara en États-Unis ñooñu duñu ay ñooñu ñoo def live. on on dirait que da ngay défendre politique je peux te dire une chose. Sénégal moma ñor mus nañ def émission ma wax la ko lamay sen la man la Sénégal moma ñor. yow grand ñu waxtan touti euh, comment dire lamay lamay y a problèmes problème 10 la la ban combat quoi yow ban combat fi Sénégal lu dul ay sa lima metti la may mi japp nañ affaire bandi la affaire de ndey la affaire de parce que dafa dafa taxaw mu ne euh, comment dirais-je Touba kenn warul sol pain dem fa moom ñu dem ñu jàpp kook yàmba ñu tourné jël yàmba boobu ñu ko jàppee ne rappeurs yi bëgg lu ko bëgg ni rappeurs yëpp dañuy tux loolu ñu xe ñu jóge foofu manifestation di am moom mu dem taxaw ca manifestation ba ñuy baare tali mu ànd ci ci un ci nga ne yow t'es responsable ci réew mi dix mille problème laa ne tekkiwul dara moom ak muus muus yow mu jënd sa mbuusu ndox naan ba pare sànni ca mbalit ma ñooyam dafa ñëw fii pour teg moyen am xaalis loolu dara wërsëgam la te amul sax il n'a rien parce que ay alalu woyaan la ñun dañ gëm tës life liggéey. xamee woyaanul kat. waaye day woyaan ñun xam nañ lépp. kan temps yi dégg naa ko xaw ma ban ministre moo ko recevoir may ko 5 millions maa ngi dégg ay 5 millions. ah non woyaan la nekkee ci réew mi may ma rek maa ngi ñëw moo tax ñun xam nañu réew mi xam réew mi nan lay doxee Sénégal. nit day nekk fële di xam bu benn dof bu mel ni 10 problème di ko waxloo ay conneries muy wax ay conneries moom mu nekk nële gis nga genre dix mille problèmes yi si c'était des autres pays là des descend wàcce nañ ko yàgg na parce que arrange Tupac da ko daan wax Tupac nee na Tupac moo ko wax du suma wax Tupac nee na moom nanguwul comme genre dix mille problèmes yi maanaam ñu Tupac da doon wax États-Unis soxlawuma jeune bu amalul njëriñ États-Unis Tupac da ko daan wax ki ñu njëriñ ay dix mille problèmes ay morgue ñooñu amaluñu njëriñ Sénégal man maa ko amal président. waaw léegi am am am